jërë ngeen jëf yéen mbokk yi ñuy bàyyi xel ci Sénégal 7 amaat nañu mbégte di ànd yéen seen émission 13 minutes de euh, vérité tey nag muy dalal euh, kenn koo xamante ni euh, bu ñu waxee solda dañ koy tudd ndogal la amoon ci armee bu Sénégal wala bu génn ci génn boo xamante ni sax. jàpp na ni waru woon eh, demee noonu te indi na fi coow lu bëri tey nag ñu fas yéene ànd ak moom ci li nga xam te ne mooy xew jamono ji ca Casamance xam ngeen ni tey eh, ci xibaar yi mujj yu ñu jotee eh, juróom-ñaari soldats yi nga xam te ne Salif Sadio ak ñoom tegal nañu leen loxo sama juumul le 24 janvier bi ñu génn tey la ñu wax ni dañu leen di bàyyi ñu ngi nag amal xew-xew bi ci Maki bi lee ngir mun leen euh, bàyyi loolu nag la ñu fas yéene waxtaane xool euh, moom mii nga xamante ne maa ngi ko junj di suñu gan di euh, caporal Ousseynou Fall tey ñu fas yéene ànd ak moom ci waxtaane actualité bu ni mel moom mi nga xamante ne yàgg naa diriger ay mission dem ci ay xare peut-être dinañu dimbali ci xibaar ya mu jotee ak it fi ñu ci toll jamono ji naka lañ mën a déggee mbir moom nga xamante ne mu ngi am jamono ji ca Casamance caporal Ousseynou am naa mbégte bu baax Fall dalal la ci 13 minutes bon maaleykum salaam Pa Ousmane maa ngi lay nuyu di nuyu waa Sénégal 7 di nuyu Sénégal alors euh, wax naa ko léegi yàggoon nga dem mission suñu waxee ni euh, teg nañ loxo ay soldats ci ban état d'esprit lañ ñooñu waaw bon comme un bon tout bon militaire. Hmm. parce que le militaire on t'a on ce que boo demee même ba ennemi la nga am ay comportement comportement bi nga war a am mooy lépp loo xam information. bu indi jafe-jafe sa base militaire waroo koo joxe même bu fekkee ne da rey parce que le militaire a signé pour hmm. donc man jàpp naa ne tey état d'esprit bi ñuy war a yore ñoom mooy un état d'esprit patriotique d'ailleurs sax ñoom boo leen gisee da xam ne ñi hmm. il reste anti il reste patriote kon da dëggal vidéo yooyu ñuy wane ni ñoom ñoom la man j'ai formé am naa ci benn élément boo xam maa ko formé am na ci ñi capturé am na ci kenn koo xam ne sama promo la à la vingtième compagnie sama promo la à la trente septième promo ah oui ci ñun jot a capturé. ci ñun jàpp ni kon am na ñoo ci xam. am na ñaar ñu ma ci xam mu leer ma nit ñi xam naa ne kenn ki maa ko formé kenn ki sama promo la ñoo defandoo vingtième compagnie. d' ñu jàmbaare nag. Hmm. foofu ñu nekk noonu. waaw ku lee jàpp naa ni dignité ak ngor ak honneur lañ fay nekkee parce que ci loolu lañ leen formé tu vois ñu dem bàngoo ñuy formé ay militaires euh, des fois ñu leen di sotti ndox lu ko waral hmm. mooy quand tu es dans la tenue ñu sotti ndox. c'est pour promouvoir ëllëg boo demee ci zone opération muy taw du la traiter de sa nga dem ci formation ñuy jàpp benn jour ñu taayee leen neen amul lekk ça te permet tey comme leen ni leen capturer ne même bu leen joxul lekk du ñu mus a wari du ñu mus a dellu ginnaaw ñu leen di xañ ngeen di nelaw lu tax ñu leen di xañ ngeen di nelaw parce que tey da ngay dem ci 6 heures du matin tu dois 5 heures du matin tu dois être sur pied peut-être euh, amutoo temps boo xamante ne di ay sieste ak yooyu parce que armée amul à chaque fois c'est lu tax ñu leen defloo endurance parce que bu ñu leen jàppee il doit être il doit rester endurant loolu boo ko boolee mooy indi le sens de l'honneur à la patrie day jëlee ni jaral ñu bàyyi seen bakkan pour défendre l'intégrité du territoire moo tax man je pense que instant bi fan nekk nii. oui euh, sénégalais naa ne ñoom ñoo newul ci jàmm. mais ñoom seen état d'esprit. Hmm. jàpp na ni mission moo leen yóbbu. kon ñun ñi rek ñoo inquiété wu mais ñoom ci état d'esprit bi ñu nekk moom mooy bi bi normal. mais c'est des militaires. ils doivent défendre l'intégrité du territoire sur toutes les circonstances ils doivent défendre. mais ñi nekkoon Gambie dugg Casamance. moo jaaxal ñëpp. moo jaaxal parce que la CEDEAO man mosuma def CEDEAO man Nations Unies laa mos a def mais la CEDEAO je pense que ñoom ci seen ay charte waxuñu ni mën nga génn benn frontière dugg beneen frontière tey même le militaire sénégalais. Hmm. buy jaar Gambie nekkoon Casamance engagé wu. bay retourné di jaar biir frontière Gambie dañuy wàcce toutes nos armes doo ko ranger ko ci suuf loolu souveraineté dëkk la cela veut dire mooy tey ñoom li ñu doon poursuivre ba génn frontière u Gambie hmm. dugg frontière u Sénégal foofu la problème bi nekk tey la lieutenant bi mu demee ba xam ni mu ngi génn la frontière Gambien Gambienne dafa wax le colonel ne ko maa ngi génn la frontière mais le colonel aussi devait euh, engager see responsabilités jàpp ni boobu rëcc na mais mën a def teg yeneen stratégie pour mën a lal yeneen camions yi nga xam ne ñu ngi ñëpp mën leen a jàpp mais quand il impose aux gens d'aller les suivre ba keroog ñuy génn frontière Gambie lu fa xew man jàpp na ni c'est l'autorité militaire qui est responsable. sur cette question. sur cette question. ah oui parce que non mënoo nekk Gambie nekk fa CEDEAO génn Gambie dem Sénégal di topp benn benn ñaanu benn genre camion. ba tey mu mu mu mu mu mu dem ba ay sa ay militaire ñàkk seen bakkan mu dem ba sa ay militaire ñu capturé leen man jàpp ni loolu inconscience autorité militaire yi la parce que tey boo duggee ci jàmbur da xam ci frontière jàmbur nga dugg lu tax ñu délimité frontières yi boo jógee Gambie dem Sénégal parce que essuyer nga sa mission génn nga sa mission bi la joxoon. mais lu noonu mën na leen a rëcc ñoom. non mais ñoom kilifa yi. non mais du yoon ñàkk bañ a xam loolu. non mais du yoon le gars mën na am fukk. le gars mën na am jaay benn jàngoo wala bëgg benn benn lettre de wala ay récompense moo tax mu sacrifié doomu jàmbur c' est le colonel même c' est le colonel qui les a sacrifiés ah oui day yegg ba foofu bëgg ay honneur mais da ci am lépp maanaam nga xam ne lii moo war a am mais teewul nga nga gëmm ci say bët ngir mën a am ay lettre de nga teg ko teg leneen les gars bi ñuy génn frontière euh, Gambie dañoo waroon replier ñoom ne bi ñu duggee ba topp oto bi bay wàññeeku moo tax sànq maa lay expliqué ne la ne la la stratégie de Salif Sadio. oui parce que loolu dañ ciy ñëw justement lu waral <laughs> ñu dugg stratège comme nous militaires il a fait des études supérieures ci wàllum sécurité il a fait des études supérieures ci wàllum défense kon Salif Sadio moom du déplacé benn otoom boo xam xamante ni jàpp na ne mooy mooy mooy mooy gagne de pain di ko bàyyi noonu da koy escorté escorte bi nag bi nu gisee nii. l'armée bi mu ngi topp gars yi dañoo taxaw embusqué embuscade triangle lan def lal à jël à droite def 30 mètres def benn benn bouclier ci digg bi boo ci dalee c'est fini gars yi ci embuscade boobu lan dal nag gars yi dóor seen kaw ay rafale yu bëree baree bëri foofu la affaire bi amee kon ñu ñoom rek ñu jàkkaarloo hmm. kenn bettu sa morom mënu lu ñu dara doo ma ne sa gars yi xamuñu woon ni bi ñuy romb frontière bi dugg ñu woon ci beneen zone ñu woon ci Maki bi xam nañ ko préparé wuñu en conséquence si loolu ñuy dem préparé wu nañ mais au retour day am délaissement parce que dañuy jàpp nii lépp leer na ci ginnaaw parce que bi ñu ñëw ah ci retour te bi ñuy retour nag la loola la gars yi dóor seen kaw xam nga les les rebelles dañoo am benn point fort dañuy am benn section boo xam yëpp RPG la ñuy yor RPG mooy ay roquettes yooyu ah kooku bu la ci dóoree dix ak nu ngeen mën a tollu vraiment euh, désespère day am moo indi jafe-jafe bi tey parce que roquette dafa kéemtaan la dafa kéemtaane fu ñu ko dóor ku dul góor du siggi jamais te ñoom loolu mooy seen kii léegi sax boo gisee am nañu ay M16. man moo ma jaaxal. mais mais mais wax loolu laa bëggoon wax jumtukaay yooyu rebelle am yor fu mu jógee. waaw xam nga la Casamance euh, portugais yi ñoo ko moomoon. mais bi ñu demee ba xam ne désobé désobéissance bi am diggante Aline Sitoé Diatta ak ñoom Aline Sitoé musul xeex. Mhm. mais supposons bu portugais yi waxoon nañu fay impôt day taxaw ne bu kenn fay impôt. moom noonu doon xeexee ba jaroon sax ñu déporté ko ci kaw loolu France xam ni il faut mu jéem a négocier ak Portugal jox leen benn île ñoom ñu jël Casamance Casamance ancienne mu ngi bokk ci Guinée Bissau premier découpage administratif bi njëkk a def Casamance c'était en 1962 Tambacounda faisait partie de la Casamance ñu découpé ko en 1962 euh, bi ñu ko découpé mu des mu la Casamance ñu ñëw en 1984 ñu découpé waat ko encore génne Ziguinchor génne Kolda ñëw ba de en 2008 ñu découpé waat ko encore génne Kolda génne Sédhiou ci loolu nag gars dañ fi am ay bastion ku ci ne da nga am secteur bi en 2007 bi abbé génne àdduna ku ci ne ci ñoom danga am bassion Salif Sadio mooy le Blouf moo jël le Blouf bi ñoo na jëm frontière Gambie Ousmane euh, Mamadou Nianta jaata moo jël tout ce qui est Samine ba Kolda ba côté Ziguinchor Euh, César Atoute Badiate moo jël dans le Fogny xam te Boulouf bi dafa nekk frontière Guinée ak Gambie te Guinée Bissau dafa frontalier ak Sierra Leone ak Libéria toutes les armes yi nga xamante ne nii mu ngi dugg ci secteur Gambie secteur secteur euh, Casamance mu ngi jugee Sierra Leone mu ngi jugee Libéria. lan la ñoom dañ koy jëndi wala dañ leen koy jox. mais c'est un trafic la France mooy suñu problème. Ah, ah oui bi mu ñëwee. jël Casamance ñu boole ko ci Sénégal ci lay jàpp wax commencé wax Casamance yi naa leen yéen vous ne set vous n'êtes pas des Sénégalais. xool leen moo dugal loolu si xool leen seen environnement bi ni mu mel yéen climat Guinée-Bissau ngeen yor France tous les pays de l'Afrique yi am instant bi conflit France moo fa implanté conflit bi France moo fa implanté conflit bi ñoom ñu ngi commencé woon ci ay fit ay fête yooyu lañ commencé woon. di commencé ñan ñoo leen jox les armes. ñan la avec la complicité de certains de certains de nos de nos dirigeants parce que man jàpp naa ne xeexu Casamance boobu ñi muy bénéficier du ñu ne du Casasee yi ah oui ñi muy bénéficier ay certains bandits d'État yoo xamante ne ñu ngi wër Sénégal ci ak ci biir Sénégal ñoom ñoo ci bénéficier wu mooy ñi nga xamante ne ñooy proposer également ay médiation mais dégg nga fi ay monsieur Casamance ba tey oui mais loolu je que jeex na non jeexul ba léegi ba tey parce que bois bi bu ñu ko fàtte oui bois de vanne bois ak teg boppam boobu tudd teg teg bi dafa cher ñun suñu autorité yi dañ ciy bénéficier wu mënuñu samp ay industrie de bois fii au Sénégal parce que suñuy traité international les traités internationaux dañoo tere ñu dagg alam bi léegi moo tax ñoom ñu implanté ko en Gambie Sénégalais yi le président Macky Sall à l'occurrence xam na ni Gambie am na usine bois xam na ni Guinée Bissau am na usine bois Gambie kenn fa dagg xob kon bois boobu ñu yor fu ñu ko foofu la Salif Sadio sukkandiku nag jël bastion nañ dañ may bàyyi ak sama bastion parce que Casamance amul xëy. Casamance amul benn infrastructure de base. président Macky Sall lii mu def ci Diamniadio bu jëloon un quart bu def ko Casamance jàpp naa ne xeex bi jeex na. ah oui ah oui kon question économique la. question la foofu leen Salif Sadio tey nee lii du chanvre indien dama koy bay. da koy bay je le trafic par la complicité de de de certains de nos lu ñu dundee. pour am ñu dundee li nga xamante ne mooy bois bi. ku fa dugg dégg nga carnage bi. xam boo fa bayal ku fa dugg lu la fa fekk engagé les gens qu'ils qu'ils recrutent li mu leen wax c'est très clair ci lii ngeen di dund man ci lii laay dund ko exploité yóbbu ko Gambie am ci sunuy gagne de pain képp ku ñëw bëgguñu ci bëgguñu ko traite euh, ñu jàmmaarloo ak moom noonu la demee mais bu ñu promouvoir woon l'emploi c'est Casamance li mu am Casamance moo war Sénégal guerre bii Casa Sey ñoo ci gën a sonn plus de dix mille victimes depuis bi mu commencé ba léegi ñoo xam dañoo tëb ci ay mine ñoo xam te ne dañoo plus de soixante mille personnes yoo xam ne dañoo dañoo jóge seen ay dëkk dem ci yeneen dëkk kon Casa Sey gën a sonn kon réponse bi mooy fexe ba li Casamance manqué mu ne ca fexe ba ni muy def jam ñaajo mu jëm ko def ci yeneen dëkk yi fexe ba ni mu def jam ñaajo mu jëm ko def Casamance Casamance gars yi jàng nañ am nañ courage nangu nañu liggéey li ñu am ci ay bien ci sous-sol li ñu am ci lu ndox li ñu mën a liggéey bari na man jàpp na ne ay de transformation ci wàllum fruit Afrique bi ñu ko war a jëndee li am Casamance amul fenn ana quartier bi kaju bii nga génn di ko yóbbu Burkina façon di ko yóbbu Côte d'Ivoire en vertu de quoi lu tax mënoo am say industrie foofu gars yi loolu rek lañ leen laaj pour guerre bi jeex loolu la rebelle laaj mais c'est la vérité ah. mais Sénégalais yëpp pour guerre bi jeex il faut que ñoom ci seen bopp ñu jàpp ni Casamance ci Sénégal la bokk pour commencer autorité yi il faut ñu def des pistes de désenclavement il faut ñu yóbbu fa ay industrie pourquoi pas yóbbu fa ay ministères il faut ñu décentraliser ministères yi au Sénégal. et pourtant pont Farafeñe baa ngi fa aussi. mais pont bi sax mais pont bi Farafeñe y' a combien de sorties ou bien y' a de portes d' en Casamance pont Farafeñe dong de. Hmm. mën nga jaar Gambie mën nga jaar ba man nga jaar Kër Ayib ñaata yoon la nit mën a jaar pour dugg Gambie. pour dugg Casamance loolu mooy problème bi problème man dama jàppuñu ni tey suñu autorité publique yi fi ñu war a taxawee mooy Casamance be la fa nekk du guerre du guerre du guerre maintien de l'ordre lañ fa ñu ko yóbbu yi ñu dem fa moo am jaf am jafe-jafe ñu yóbbu gendarme ñu am jafe-jafe ñu indi rétablissement de l'ordre indi armée armée ku fa dee yaa ku fa dee yaa perte lu tax nga rétablissement de l'ordre la comme policier bi gendarme bi def fi euh, bi def euh, émo. maintien de l'ordre ba génn àdduna bon sa pension la lay jox mais amul dédommagement mais ak ñii je pense que la CEDEAO prévoir na et dédommagement comme les comme les Nations Unies. mooy ñi nga xam te ne jot nañu capturer. waaw mais mais noo mën a comprendre ñu ne accord dox na ci diggante Salif Sadio état bu Sénégal pour ñu bàyyi ñi. waaw man dama jàpp ni Salif mën na nangu lool waaw dama jàpp nii lu fa dox dama jàpp ni sama papa Salif Sadio dafa war a comprendre ne c'est un hmm. dafa war comprendre ni ñun dañ ko soxla même lu ko tubaab bi influencé tamit na jàpp ni Sénégal la bokk na jàpp ni loolu muy mëne en Casamance Salif xeexatul pour indépendance de parce que xam na ni loolu mënutul am léegi li muy xeex mooy moom li muy dundee. li muy dundee li muy dundee par la complicité de la France li muy xeex mooy. il faut ñu am benn zone tampon boo xamante ne ni lépp muy indi insécurité Sénégal demal dans le Mali Mali tey le nord et le sud moo yor Mali fa le terrorisme bi taxaw mais c'est la France Burkina c'est la France le Tchad c'est la France la Libye c'est la France kon man jàpp naa ne tey sa devoir Salif Sadio mooy cesser le feu waxuma cesser le feu de hmm. mooy rupture des armes rupture rupture mooy ñi koy jox arme yeeg muy jëndeeg yooyu yëpp mu teg ko ci suuf mu teg ko ci suuf xam ne Sénégal la xam ne war na bokk ci ñi defar Sénégal deuxièmement man je ne favorise pas euh, la négociation par les armes mmh. man c'est def naa Casamance def nga ko xam naa Casamance boo xam bu baax ñaata at naa fa li ma fa def ëpp na six ans parce que corps yi ma nekkoon dañuy engagé wu Casamance lépp c'était quoi maintien de l'ordre lépp c'était rétablissement de l'ordre waaw rétablissement de l'ordre de l'ordre Salif Sadio na comprendre ni Salif Sadio na comprendre ni au préalable il faut que Casamance am jàmm pour Sénégal mun am jàmm malgré tubaab bi bëgguñu Casamance am jàmm mais ñun war nañu fexe ba Casamance am ba tey loolu tubaab baa ngi ci mu ngi ci ñoo ko sookee France du la nga nelaw ñoo ko sooke. fan la ñuy jaar. mais wala seen base yi la wala. Sadio tey mu ngi France ginnaaw suba mu ngi Canada. parce que kan moo ko jox passeport diplomatique. ko ko jox bu muy voyagé fu muy jaar. ñun ñoo ci gën a sonn dil la boo xamante ne au sommet de l' état. au sommet de l' état au sommet de l' état. dil la bu mag boo xamante ne nii d' ailleurs ci dil boobu ci la ab le colonel Abbas Fall Baye. mais musu ko wax. mais ñu ñoo koy wax. lan la lan la non c'est important. il a demandé une renfort de munitions pour s'en finir avec les avec la rébellion parce que jamono jooju on avait perdu plus de trente éléments. lu métti sax au vingt cinquième Beera. le cerveau du vingt cinquième Beera bi affaire yi dafa pilonné ay villages Gambie xamuñu ko def. Hmm. dañ ko jël simplement affecté ko Dakar jox benn bureau boo xam te ne journal rek la mën a lire. le gars bi nga xamante ne dafa riposté la perdu plus de vingt éléments y compris un capitaine capitaine K ñu def ko noonu le gars bi mu demee ba au but final hmm. sur ñu dem fenn sous vingt quatre heures guerre bi da doon jeex bastion bu Salif Sadio boobu moom da doon jeex. maanaam c'est fini oui. mais il a demandé une renfort de munitions gars yi refusé ko ko. gaayam l'état du Sénégal. ndax la je sais pas dil bi ma lay wax. ñu nangu renfort boobu ñu génn dem bi ñoo na pour jël munitions yi dem jox ñu ay munitions chinois du set boo armée boo dóoree mu dagg tu n'as pas le temps de se combattre foofu la démissionné tekki ay baritam un leader charismatique Saint-Cyr la génne ku yaakaaroon ni Sénégal armée bi war na mën a jeex ak lii. Saint-Cyr soo ko xëy sama xel dafa dem ci capitaine Dieye. waaw l'honorable capitaine. ñoo ñëw fa lañ génne en 2012 guerre bi mais on l'a donné l'ordre de les laisser partir on l'a donné l'ordre d'exécuter les ordres sinon on va le considérer comme un rebelle qui a désobéi les ordres du chef en temps de guerre. te ñëwoon ba léegi ñu ngi fi ba léegi. ba léegi. ci état bu Sénégal. ñu ngi fi c'était en 2012. dañ leen di woowee ay monsieur Casamance wala la. dañ leen di ay monsieur Dil dañ leen di ay monsieur dem Casamance coppet fa bois dañ leen di ay monsieur Casamance ne ci ci ci ne c'est des ngi luy problème bi ba mun cee jug. parce que man jàpp naa ne amul courage parce que ça les arrange. kii ñoom ñëpp ñu ne Sénégal am na instabilité ci benn zone zone tampon. ñan lay arrangé ay Sénégalais. non l' du Sénégal buñ ci bëggoon a jug lii jeex na lii jeex na guerre mondiale sax ci négociation la mujjee nan la ñuy négocier ak Salif Sadio te du toog ñu toog bëgguñu ko capturer jàppuñu ko c' est un Sénégalais honnête am na lu doon xeex. ñun xeex bi man jàpp naa ni révolutionnaire la mais bu ndee ba ca kanam day gis ne xeex bi amatul chance mais état bu ko woon a jeexal tey jeexal na ko mais bëggu ko. maanaam tey bu ko bëggoon jeexal ci armée rek bu jaaroon ci armée rek. jeex na bu jaaroon si moo xam man souhaité wu ko mais bu jaaree ci armée rek jeexal na ko. naka naka euh, parce que on veut comprendre euh, armée yàgg na faa dem gis nañ ko bu yàggul dara. Euh, même bu fekkee sax parti yu mu doon def ak maintien de l'ordre yi nga wax sànq c'était parce que dañu gisoon ñoo xam ay samba boy la ci li ñu expliqué parce que souvent du ñuy joxe raison yi tax euh, mais naka naka bu ko doon jeexal. xam nga man jàpp naa ne rébellion bi jeex na bu yàgg. Hmm. samba boy yooyu ñu wax ñoo fa des. parce que idéologie rébellion bi bi muy commencé en 1944 euh, ak Émile Badiane ñoo ko doon waxtaanee ak comment dirais-je Abbé. jamakum jamakum dañ ko bëggoon def un parti politique pour la Casamance loolu moo nekkoon vision bi mais bi nee ba en quatre vingt quatre vingt et un ci lañ am ñoom ci lañ am idéologie ne nañ jël armée mais au préalable nekkoon pour jël armée pour xool ñoom ñu def ba Casamance développé la woon. foofu nag la Samba Boye jaar influencé la ñan ñoo leen di ko jox arme. justement ñan la fu mu jaar ay Kalachnikov lan lañ di ko jox. ak ay B10 ay RPG ay LRAC lañ nag ay du set lañ am parce que dañoo nangu suñu du set militaire dañoo nangu suñu arme militaire yi depuis 2012 nangu nañ suñu arme militaire yi ay du set la yor ay ay ay comment dirais-je encore euh, ay obi lañ yor ay roquette lañ yor ay arme lourde lañ yor même ay mortier yor nañ ko mortier yor nañ ko jëloon nañ ko kabam en xam nga Kaboom l'histoire de Kaboom. Hmm. dañ leen a fekk ci biir position bi. dal seen kaw rey fa ñenn ñi jàpp ñenn ñi ñenn ñi daw tëb ci ay mine xam naa si kenn ko xam ne dafa daw mi dafa tëb ci mine décédé ñu jàpp leen yóbbu. intervention bi muy ñëw capitaine Ka ci lañ décédé moom it waaye mais duñ bàyyi sama gars yi parce que ay jàmbaar dëgg lañu. ñoom rebelle yi. ñun l'armée l'armée moderne. léegi ku fa dem kon lan la. ku fa dem nee nga yaa xaru. mais maanaam maanaam maanaam maanaam taxawaay dëgg amul pour. muy saal saal mu yëpp mu jeex. kon kon li ñuy def nii armée li muy def nii kon lan la. mais simulation laa ko jàppee. simulation laa ko jàppee parce que bu ñu bëgg mu jeex jeex na 2012. ñaata militaire ñi fay dem xam nañ loolu. mais ñu ci bari xam nañ ko. malgré tout dañuy dem. mais dañuy dem parce que ils ont signé de de de mourir pour la patrie désobéissance doom dañuy dem pour défendre les Sénégalais. ñoo xam nañ bu nee ba ca biir loolu noonu. Hmm. mais c'est de la mascarade. kon maanaam bu ñuy dem du ñu dem ak seen li ñu soxla yëpp parce que yaa ngi wax sànq bi ñu demee ba mu demander euh, renfort euh, munition dañoo bañ kon ça veut dire que li ñu yàgg wax ni Casamance souvent armée bi fay dem daanaka dañuy dem nii rek mais amuñu jumtukaay yeeg matukaay yi war. commencé ci lekk gi. ah jafe-jafe la wàccal nga dem ci leneen. lekk gi lan la waaw. jafe-jafe la naka. loo ci dund yow. bi bi ñuy jox pour mais ay jafe-jafe yu métti la da ngeen dem ba ay sombi ci biir Casamance yow nga nekk militaire régulier état du Sénégal envoyé la fa. nga dem lekk sax da lay të. ay géej ay yéet ay kecax des fois loolu ngay dundee ñun dund nañ ko. mais on nous a formé pour ça moo tax Bango Mayel dañ leen doon taaye. te loolu dañ koy def exprès. mais yenn chef ñoo ko tey duufal seen poste. comment fàtte ñi nga xamante ni ñoo tax ñu leen di fal ak di leen fay. mooy budget bi ñuy nattal forces armées ci lool la. est-ce que xaalis boobu boobu la jógee. ah fan lay bàyyee ko. moo ma jaaxal laaj naa leen ko. non <laughs> je les pose une question je les ah. pose ça c'est une question que je vais au président de la République. Ah. et au général Cheikh Cheikh euh, comment il s'appelle encore Cheikh Wade. oui bi dem Casamance. carburant bi dem Casamance. ak ISEO bi dem Casamance. ci budget militaire bi la bokk wal daa ñeen ñu koy financé ça c'est question bu mu leen posé. loo njort yow. c'est une question loo njort. bi dem na. <laughs> Euh, question bi dem na mais loo njort. parce que man dama jàpp ni. Euh, dugal nañ ci benn business boo xam te ne mu ngi lor askan wi. ban ci boo demee en Casamance. ki fa gën a sonn c'est le soldat les hommes de troupe et les sous-officiers euh, position yu bari ay sous-officiers ñoo nekk ay chef de section mais ñoom par rapport ak ISO e bi ñu leen jox par rapport ISO e bi ñu jox officiers yi mais y une mer à Hmm. ñun ñu ngi fay nekk trente mille la noonu am l'officier à quatre-vingt-dix mille te liggéey bi yëpp ñun la le sous-officier avec quarante cinq mille léegi nag yokk nañ ko mais ban koy yokk man fekk naa génn na léegi le sous l'homme de troupe il a soixante mille le sous-officier il a quatre-vingt-dix mille et l'officier est-ce qu'il n'a pas cent cinquante mille dise wo xaalis boobu fu mu jógee nattu nattu ci euh, euh, budget armée la hmm. wala dafa am ñeneen ñoo xam ne dañ leen koy jox pour ñu mën a gérer l' affaire de la Casamance loolu nag c' est une question que di poser te jàpp naa ne bi yoon moom war nañ maa mën a tontu parce que mosuñu a tontu. kon dafa mel ni su cette question de la Casamance responsabilité bu ñu koy situé dina dem fu fu kenn yaakaaru. mën na dem ba euh, répercussion guerre golfe ba. Ah <laughs> sori na. mën na dem ba ci répercussion guerre golfe ba je lui pose cette question. Euh, ci responsabilité bu ñu koy situé tamit ci ñiy intervenir ci question Casamance bi doo bàyyi kenn kon. du ma bàyyi kenn. ba ci armée. le premier responsable c'est Senghor. Senghor. parce que moo leen ko dikk te xam ne mënu ne ba mu demee ba euh, quatre-vingt xam na ni guerre bi day tàkk mu daw bàyyi fi Abdou Diouf Abdou Diouf moom comme il était jeune dafa ñëw rek taal guerre bi et pourtant mën nañu ko négocier Abdoulaye Wade bi ñëwee cessez-le-feu am na xam nga quatre-vingt-onze cessez-le-feu amoon avec monsieur Casamance Marcel Marcel Bassène. Marcel Bassène. Mhm. le premier monsieur Casamance. bi ñu demee ba aussi ak Ablaye Wade c'est le feu amoon na mais de 2012 bi ñu jàppee sunu éléments yi ba bàyyi leen ba 2016 ba 2017 y avait vraiment accalmie benn accalmie en Casamance. boobu na ci leen waroon a investir en Casamance bu fekkee amuñ ci ay inter ay ay ay intérêt occulte mais nguur gi mu ngi wax de pôle ay pôle agro euh, ni ñu ko waxee ay agropôle mu ngi koy tudd di ci tudd euh, Casamance am na yeneen yoo xam ne président Macky Sall bi mu fa demee bu yàggul dara def na ay annonce yu mag euh, ci ci ci ci Casamance wala yooyu doyul. waaw man jàpp naa ni dañ ko war a matérialiser. <coughs> dinaa dinaa dinaa rek ok de baax na mais kañ koy def la Casamance et hmm. mooy les deux pôles. de développement du Sénégal. Casamance ak Kaolack. mooy Kaolack ndax gerte gi. mooy deux pôles de développement amul fenn fooy jugee ci. Hmm. kon <coughs> jaaroo Casamance jaaroo Kaolack. Ah. kon foofu tous les moyens yi état am war na ko mën a def foofu pour ñu mën a développer sinon Guinée Bissau moo ci développé Gambie moo ci développé. Hmm. Sierra Leone moo ci développé Guinée Conakry moo ci développé Libéria moo ci développé li ñu am c'est trop. te chinois yi xool ñu ngi jël suñu boo bi di ko yóbbu di ci defar lu leen neex xëy suba ñu jaay loo ko fi ay 2 millions benn lal te bois bi fi la jógee. Euh, Ousmane Sonko bu waxoon bu yàggul dara sooy fàttale ko ci événement mars yi ne état bu Sénégal pare naa pour liggéey ñoom pour Casamance li fa am jeex lu mu mën la. moom rek mën na ko régler. ah oui ah oui c'est un grand monsieur Ousmane Ousmane Sonko Aliou Cissé l'a fait. Sadio Mané laa fay. ñun ñu fa dëkk. tey bu fekkoon ñaanu ko yàlla euh, cas Thiès moom am conflit man dinaa ci bay sama waar ba conflit ba jeex ak keneen ñoom dañ ci gën a war a bay seen waar ànd ak l' état du Sénégal dem def fa ay médiation waxtaan ak ñoom ba pare état bi accepté accords yi nga xamante ni samp na ko. état bi day teg accord rek def na ko enseignant day teg accord préfàtte ko. xanaa loolu dafay tàmbali ci d' abord ñi bëgg jàmm jooju ñu réglé leen. waaw ñoom bëgg nañ jàmm. non dafa am wax ni. ñoom ñooy dund ci Casamance ni mel ñooñu laa wax mhm. ñi ciy dund noonu xanaa dafay laaj d'abord ñu lijjanti seen i mbir est-ce que ñun ci système boobu bu ñu bëggee développer hmm. est-ce que ci ah, système boobu ñooñu boo leen lijjantiwul accord boo mënti teggin mën nañ ko fragiliser waaw xam nga xam nga le système dañ ne le ñu jàpp ñu bari dañ jàpp ni hmm. c'est des instruments mais man jàpp naa ni système ay forces occultes la ak ay forces obscures la suuf ñoo xamante ne c'est des personnes sax yoo xam ne c'est person personnes. te mën nañ leen identifier. mën identifier nañ leen bu yàgg. ah mais c'est la vérité état bi xam na kan mooy dox ngir Casamance jàmm xam na kan moo doxul ngir Casamance jàmm ñoom kay ñoo ñoo jëlu seen ay responsabilités mais man je sais que beneen président bu ñuy très jeunes dina ko régler nee naa il faut ñu yóbbul leen ay voies et moyens yu ñu mën a dundee faa ñu fexe ba ñoom ñuy xëy di wàcc Casamance dafa yaatu Casamance c'est un un septième du Sénégal. dafa yaatu lépp a ngi fa yomb naa lijjanti mbir mi. bu fekkee dañu dem nag ba Salif Sadio bañ. on doit faire recours <coughs> la médiation avec les les armes. bu bañee bu bañee c'est ça la diplomatie la diplomatie elle est dissuasive la diplomatie c'est les armes parce que tey boo xoolee Erdogan mën taxaw ak France waxul ko neex. mën a taxaw États-Unis waxul ko neex parce que bu derrière lui. am na une force militaire bu dëgër bu renforcé bu équipé bu outillé bu bu mën a défendre réewam mais amoo loolu c'est dommage. kon Ousmane Sonko mën nañoo yaakaar ci moom. mën nañoo yaakaar ci moom Guy Marius Sagna noonu. mën nañoo yaakaar ci euh, moom Sali euh, euh, Ablaye Balde Sadio Mané ñoom ñi dëkk Casamance ñëpp ak ñun sénégalais yi sénégalais de la Casamance sénégalais de Thiès sénégalais de Tamba ak dans toutes les régions du Sénégal ñu joxante loxo. woote jàmmu Casamance man je pense que jàmm mën naa am ndax askan wa ca bopp askan wa fa dëkk ci boppam bëgguñu loolu ñoo ci gën a loru. Hmm. xoolal les déplacés nekkoon naa benn bantan benn dëkk boo xam Bantankountou da ngay dem ba Goudomp nga dem Jibanaar après tu prends Saliote Saliote Bantankountou ba euh, après tu prends Saliote euh, Saliote Bantankountou dëkk boobu c'est des déplacés. et que boo demee ci environnement bi foofu y lépp ñu mën a bay lépp lu ñu mën a dundee lépp luy bois mu ngi fa village boobu ak Sikum bi nga xamante ne neenaan din nañ ko jamono jee passé ñoo noonu parce que <coughs> rébellie ak la sa zone là c'est une zone minée kon askan wi ci boobu ñoo ci a lor askan wi ñoo doon tëb ay mine mais France dugalu fi woon koppar pour ñu déminage waaw déminage marocain ñëwoon nañ fi déminage c'était en 2006 oui mais am na bu récent su ma juum. bu récent en mille vingt et un. mais pour déminage bi mën a jeex. Hmm. il faut ñu collaborer ak ñi nga xamante ni mooy ñoo yor bastion yi. déminage balaa muy am il faut ñu woote jàmm ba pare. il faut ñu rendre les armes ba pare. doog a mën a ñoom ñu ànd ak ñoom ñu wax ñu fan ak fan lañ defoon miin. xam nga hmm. miin day dox. miin boo ko sampee is euh, fii. Hmm. suba bul xool foofu parce que bu tawee ndox mi da koy yóbbu. ah yi ba tëb ci miin te duñ ko xam. min lay dox loolu la ñun jaamu Casamance la suuf mën na fa yàgg parce que léegi sa mini garab dañu koy piège ak grenade moo tax boo ci tabee rek c'est fini man dem naa jululu hmm. euh, war a dem jakay kombali sama position ñu compter ma vingt cinq munitions vingt cinq dans le Fogny secteur boo xam ne su ma génnee julul damay dem Koba un Koba deux dem Sileti dem Tambacounda dem Kabakel dem Jiraal doo ko dem Jaxoy Kombali Jaxoy Kombali boo fa génnee moo lay yóbbu ay Jibi Jon moo lay yóbbu euh, ay Kañeeru ay Ñankit euh, moo lay yóbbu Sindian moo lay yóbbu Sindian yóbbu dans le nord Sindian mooy secteur bi gën a vaste secteur boo xam population bi dafa réduit mais àll bi yaatu ñu jox ma vingt cinq munitions pour ma dem sama position vingt cinq vingt cinq munitions dem nañ ci embuscade à Senghor a Mawa hmm. ñu taxaw ci embuscade bi boobu rebelle dañoo ñëw dugg ci village bi dajji boutique yi jël fa ay ceeb jël fa ay dëwliñ di génn ak loolu jël civil yi def leen bouclier civil yi leen ëmb ñu yan leen affaire yi ñun bi ñu yegee kii ñëw intervention à Senghor bi nu ñëwee mais dañoo gis ne ñoom ñu ngi dóor suñu kaw mais ñun mënuñoo riposter parce que dañoo bouclier ak civil yi foofu la suñu otopaan foofu noonu ci biir embuscade bi ñoo ko doon pousse c'est dangereux nga ne bëgg nga développé nga fàtte armée dëkk bu développé armée moo ko développé. fàtte la wala tayef. non tayef la ah parce que jàpp nañ ne l'armée parce que saa yu ñu def 4 avril li ñu fi génnal quand même ci ay jumtukaay. yu ci bari dañ koy loué. loué lan. dañ koy ñun nekk nañ en pleine opération en pleine opération en Casamance. Hmm. en plein ratissage perte et officier demander euh, euh, Fokker bi pour mu ñëw intervention moo ñu ci mënoon génne. demandé Fokker bi nekk Fokker bi dem na Dubaï dem na Qatar yóbbu ay jabaru généro yóbbu ay jabaru ministre ñu dem def ay achat boobu ñun Casamance ñu ngi ko soxla. te yéen yéen ko soxla Casamance. kenn mënul wax lépp <laughs> je li wax kenn du ko weddi kenn du ko weddi. di yóbbu ay jabaru généraux yi. ay jabaru généraux ñu dem ñu dem def ay achat. alors que yéen a ngi ko soxla pour mu xetil leen boobu ñu ko soxla ñu ngi ko soxla kenn du weddi li may wax personne. kon 4 avril li ñuy gis noonu di gis noonu yëpp dañ ko luwe mais nga 4 avril loolu mooy diplomatie da ngay génne li nga am lépp ñu ne i Sénégal la mais lu ci bari dañ ko luwe lu ci bari moomuñu ko lu ci bari moomuñu ko avion yu bari moomuñu ko ñu luwe mu ñëw circuler circuler après survolé dem ñu ne dañuy nax suñu bopp tey ñun Sénégal atte duñu terrorisme parce que yàlla bu mu fi ñëw parce que amoo sax effectif amoo sax effectif bu mat bu mën a gérer tout un territoire tey la preuve fii gars yi génne dans le bluff. jógee Gambie dugg Sénégal foofu amoon position militaire problème du am mais ñoom natt nañ xam ne fii amul position. ñoom rebelle yi. nañ ko moo tax ñu jaar fa. Casamance du zone yëpp la ñu sécuriser de am na zone yoo xam ne sécuriser wuñ ko ma nekk naa benn village boo xamante ne nii la population la moitié de la population ñëpp ay quarante Gambie la ñu yor. te ay sénégalais lañ seen ay activités yëpp Gambie lañ koy defee da nga ñu man Gambien la. c'est extraordinaire ñu ko Ousseynou caporal Ousseynou Fall ah, suñu gan ci 13 minutes situation bi am ci Casamance waral euh, ñu dalal ko fi ngir waxtaane mbir yi mais mais mais mais li ngay wax ni c'est beneen réalité la. effectivement ci lu ñu xamul. ci lu ngeen xam des na nag lu bari loo xam moom ku ko wax. biir Casamance. loo xam mënuñu ko wax mën a taalum réew. business bañ fay def ñoom autorité nañ ko baax te jàpp ni Casamance. mooy voie de développement bu Sénégal dañu jàpp ni ñoom chanvre indien bi nga xamante ni ñu ngi koy jël di ko génne di ko yóbbu Dakar ak feneen ak feneen ci yeneen dëkk yu mag yi nañ jàpp ni loolu askan wi xam nañ ko nañ jàpp ni trafic bois boobu bi tax ñu ñàkk suñu ay soldats tey honneur xam ni askan wi xam nañ ko nañ xam ni askan wi xam nañ ni y a des monsieur ba tey ba tey nañ xam ni askan wi man ce ministre là je vais pas je vais son nom oui pour lui protéger escorté naa ko dans le nord Sindian mu yóbbu camion ravitaillement yóbbu malet bi ñu demee ba à l'entrée ñu ci la ñu wax ñu taxaw mu ànd ak karam dem c'était devant moi. te loolu fan la doon dem. Casamance ci rebelle yi. ci rebelle yi ah. nourriture. ñooñu mallette ñooñu dundal ñooñu seen ay doom ñooñu di faj bu ñu feebaree sénégalais lañ bëgg a nax rek mais sénégalais dinañ yeewu léegi de. ñun tamit nañ taxaw pour yee leen. alors euh, bu ñu taxaw pour yee leen nga wax sànq ni am na ñoo xam te ne mën nañ ko régler tey boo amoon possibilité delluwaat armée ñu war la yóbbu Casamance di nga dem. waaw fudul Casamance sama numéro président Sénégal. mais justement Casamance. dama dem. ba léegi am nga envie jëlaat. ba malgré li la génnee armée. je suis pour être militaire. je vais mourir militaire moo tax ma garder sama caporal. te nii sentiroo ne am nga benn handicap. man jàpp naa ni. tey jii nii nii munu maa woon munu ma dellu Casamance mais bu doon je suis apte à 100 pour cent taxaw naa pour dellu Casamance parce que tey ci corps de service parce que benn bët la benn bët munoo gerte. mën nga ko fàttali Sénégalais yi lu waral benn bët. waaw euh, Sénégalais yi ci bari nag na nañ histoire bi léegi parce que histoire bi mu ngi bëgg damay dem ba jàpp ne c'est une histoire romantique. c'est extraordinaire. parce que. Euh, man dama blessé di former ay militaires ci biir formation ay jeunes soldats yoo xamante ne ñoom ñoo war a taxaw dem guerrel Casamance ñoom ñoo war a taxaw dem représenter Sénégal fu hmm. ñoom laa doon formé pour ku ci ne ma jox benn métier d'arme foofu laa heurté benn bant. ci bi ñu leen di formé. ci bi ma leen di formé. di leen wan ni nii la ñuy déjouer ay embuscade boobu bàyyiwoo xel embuscade bi. boobu ma xel ni yàlla noppi na. parce que bi may génn sama chambre felt laa sol yor naa ay verre blanc pour guddi ay de protection mais fa laa ko fàtte fa nga te torse bi yëpp jël naa ko ak casque ak felt bi bàyyi fa kii bi li ci gën a déplorable hmm. mooy ñu war ma évacuer évacuer hmm. bàyyi ma fanaan fa loolu nag du ma wax euh, li nga xamante ne nii mooy ña fa nekkoon noonu dootuma wax loolu hmm. damay jàpp ni c'est toute l'armée sénégalaise tey bu fekkoon ne beneen blessure la bu dul bët qu'est-ce qu'on va avec lui bu fekkoon ne tey bal moo ma bal lañ ma dóor wala ma def incident tey comment je vais faire day gën a grave. li nga bëgg wax ne mooy nii matukaay yëpp dajewul woon ci ni boo gaañoo ci saa si ñu jël ambulance ba dafa paanoon aussi amul carburant carburant ba fa desoon dañ ko waroon a jël def ci camion 10 17 bi pour dem Saint-Louis jël ravitaillement bi ma ko capitaine bi waxee je le comprends du ci dara j'ai dit ok mon capitaine ma fanaan ak sama bët bu tuuru 14 heures la ma évacué ci camion 10 17. ci ku gaañu ban heure. ci ku gaañu le dimanche maa ngi gaañu le dimanche janvier à 2015 euh, maa ngi gaañu 20 heures 30. nga fanaan noonu ba 14 heures ma fanaan heures le lundi. ñu évacué ma hôpital ñu ñu yóbbu ma Saint-Louis maa ngi àgg Saint-Louis ay vingt parce que camion bi aussi dafa lengoon benn 4 kat 4 dem nañ ba ci yoon lenge bi dafa dagg jaar nañ Linguère ba def wàcc fa Coly jaar nañ Daara wàcc fa Coly ba doog a egg Saint-Louis bi ñu àggee ba saint nag ñu dem yóbbu ma hôpital régional bi ñu yóbbu hôpital régional fekk ñu fi le médecin le technicien ndongo lañ fa fekk bi demee ci ndongo. ndongo xool daan il faut ñu bàyyi ba le 27 suba pour médecin bi ñëw ophtalmologie bi médecin bi mu ñëwee tamit aussi xool dafa xool rek daan na ma daan la évacuer Dakar boobu nag mi ko waxee jooy na parce que dama xam ne gars yi dañu ma sacrifié te mënutuma dellu ginnaaw. dakaar nag ba euh, euh, Saint-Louis ba Dakar nag ambulance la ma dem def opération médecin bi sax nee na ma sa bërëb dafa cicatriser wu. bu administration bi gënoon a gaaw ci samay mbir tey du ma ñàkk sama bët. parce que nous sama des actes réflexes bu la jamee ci biir xam nga ni ngay toogee. Hmm. boo gaañoo ci bët xam nga ni ngay toogee. ba rectile bi bañ a yàqu ba bët bi bañ jeex ñun xam nañ mën na di faju gisuma seen appui financier hmm. seen appui psychologique gisuma ko seen présence gisuma ko hospitalisé na dix jours gisuma benn militaire benn chef militaire bu ñëw taxaw ne ma caporal Fall noo def. benn benn. lépp li nga xamante ni mooy mooy prise en charge la ñuy wax mais prise en charge naan naa évacuation bi la jàpp naa ni euh, opération bi la jàpp naa ni lal bi la jàpp naa loolu mais la ma doon lekk parce que la ma doon toog mënu ko lekk la ma doon lekk maa ngi jënd sama bopp deuxièmement ordonnance bu génn opéré nañu par jox ma ordonnance ma jënd ko sama xaalis loolu kenn remboursé wu ma ko ba léegi te ñoo ñoo waroon prise en charge ma def fa 10 jours la pal bay génn na ci ay rendez-vous nag ba mois d'août un commandant est venu derrière moi xaw ma ko sax comprendre moo sax mu ñëw rek poto ma déserteur nii maa ngi faju d'accord amagu ba léegi dara dara bougé wul bi ñu ko daree wax dara bougé wul léegi dana nañ ko bàyyi muy wax rek <laughs> bu waxee ba sonn dina noppi mais du ma sonn <laughs> d'accord ñu jeexalee dara bi nga nekkee woon en exercice du ñàkk am na lu la marqué waaw man li dem nga je sais pas euh, ci toolu xare am lu la dal wala waaw amoo loo ci fàttaliku. waaw li dal gars yi dal na ma. ah li dal gars yi. <laughs> li dal juróom-ñaari soldats dal na ma. ah mu ma dalee jaxoy kombali. maa ngi jógee jaxoy kombali boobu dañoo dañuy def maag euh, caporal d'ordonnée bi nekkoon euh, Jibi Jon. Hmm. ñoo gën a jege ci position. bu fekkee ni jaxoy kombali nag dama koy jëlal ay vingt kilos trente kilos yóbbu jëndal ko yóbbul ko su ma demee mu ma moom tamit bu Jibi Jon rey noonu lay def man le jour nag bi may yóbbu euh, kii bi viande bi ma ñëw ba jibiyam kon ne dem Jibi Jong ñëwaat bi may ñëwaat nag ci axe Jibi bi bay jàdd rek ci la cadre bel taxaw sama kanam ki mu doon dawalal noa sama xarit boobu ndeysaan mu ngi joxe kombali maa ngi koy ñaanal jàmm man dama man dama man dama xool dama taxaw tëb dama man dama tëb moto bi ba ma siggee gis ne dama tëb taxaw. mais mais kilifa gi xam nga euh, mënuñoo jeexal te duñu wax ci solution yi ak ay proposition yoo am xëy na mais laata boobu ñuy wax ni guerre amul Casamance dëggantaan lu ñu mën a firndeel. waaw rétablissement de l'ordre moo fa ku fa dee yaa perte. yan séquence la ñuy sentir ni bal yi jib na ci yenn yan période. élection. élection le 24 janvier lañ jàpp gaay ci la attaque bi am en 2012 ku ne bi Macky Sall di fallu direct tour da ngaa nekkul Casamance ñun en 2012 à Goudomp rebelle dañoo traîné duñu voté ji askan wi duñu voté dañoo xeex ak ñoom xëy lendemain dem voté ji ak 31 décembre. 31 décembre ci ñuy génn ci tali bi nag. pour ajaake képp koo xamante ne nii yaa ngi jugee Guinée jëm Sénégal wala yaa ngi jugee euh, Casamance jëm Dakar ci la ñuy génn nangu say bagage mën na la cay mooy période yi gën a sensible. mooy période yu gën a sensible chaque trentaine décembre la ñuy génn chaque élection la ñuy génn pour montrer que ni ñoom ils demandent l'indépendance. ah oui bokkuñ ci élection yi la ñu bëgg a wax. et ku gis Coupe d'Afrique bi. oui ñu jëlee ndam li. oui ni Casamance mel. gars yi di supporter. ànd dans la cohésion. ñi nga xamante ni ñoom lañ gën a repérer vraiment jàpp nañ ci équipe bi muy Sadio Mané ak Aliou Cissé ku ñoom war nañ def seen xel ni lañ leen war muy indépendance mënatul am mënatul am jamais li mën am mooy nan nangu ne ci ñun la ñu bokk ñun ñu nangu ni ci ñoom lañu bokk ñu promouvoir fa l'emploi promouvoir fa ay ay industrie en dehors ci yooyu nga am ak proposition yeneen yeneen la. à part li nga wax ni promouvoir l' emploi fexe ba Casamance suqaliku ba ñu gis seen bopp yan proposition la ñu. ñu sécuriser suñu frontière ak Guinée Bissau ak Gambie parce que ce ne sont pas de nos amis Gambie du suñu xarit. parce que bu non c' parce que bu nekkoon suñu xarit moom du am àll bu ne yàmbalang kenn du fa dagg bois muy accepter chinois yi ñëw implanter ay usines en Gambie dugg Sénégal forêt Sénégal di fa dagg ay ay ay ay ay alam bi di ko fa trafic di ko di ko fa transformer di ko jël di ko yóbbu Chine. bu doon suma xarit Guinée duñ ko accepté. ak Adama Barrow ni mu mel ak président Macky mais la moo tax Adama Barrow moom ci boppam xam na ni usines yaa ngi nii xam na ni Sénégal lañ jëlee alam bi Macky Sall xam na ni usines yaa ngi fa xam na ni Sénégal lañ ko jëlee ñoom la rek. d'accord à part loolu sécuriser suñu frontière. faaw ñu sécuriser suñu frontière. il faut ñu renforcer aussi les zones tampons. zone tampon yi. il faut ñu renforcer renforcer en lan. en il faut ñu renforcer ko. Hmm. en élément. ok il faut ñu renforcer ko en équipement. il faut ñi nga xam ñoo ne ci frontières yi il faut ñu renforcer leen avec des armes lourdes ba pare renforcer ñun suñu section cinq la ñu woon. 35 35 éléments la ñu woon. day dem di gën a wàññeeku moyen 28 éléments 18 éléments ñooñu kat kan lañ mën a téye ak seen courage ak seen jom armée yi des fois nga dóor mu kale des fois nga demal renfort munition kenn la ko jox. kon jàpp naa ne ñoom ñoo bëggul bi jeex d'accord mais suñu mu jeex l'armée est bien équipée sera bien équipée ils sont bien formés. kenn waxatu ko kenn waxatu ko. formation kenn gënuñu mais lii lii war a doxal après formation bi. Hmm. mooy le moral des des troupes amuñu ko. d'accord des fois booy da ngay waxtaan ak ñoom mais da nga xam ni désespoir total la ñu nekk tey armée da ngay rengagé nit boobu ne la bëgguma. ñoom ñëpp ñu ne bëgg ñu dañuy ñibbi 30 ñu ne dañuy ñibbi parce que dañuy ñibbi dem def concours gendarmerie wala douane wala eaux et forêts wala service d'hygiène wala sap wala kii wala gendarmerie. moo gën a oyof ci moo gën a oyof ci ñoom te foofu ëpp xaalis. ah. Pape man man en 2007 2005 2007 2005 2007 maa ngi doon case nekkoon Casamance di guerre mais salaire ru 11 410 francs la amoon. le mois le mois. onze mille quatre cent. ñaari junni ak ñaar téeméer ak ñaar dërëm. lañ la doon fay lañu doon fay. loolu loo ci def. moo jaxal ñëpp deux ans onze mille quatre cent dix lay fay armée léegi yokk nañ ko sax trente mille trente mille lu mën a faj sa yaay dégg ni dem nga armée mu yaakaar ne yow di ko dimbali nga koy fay trente mille lu mën a dimbali. kon il faut euh, nos autorité militaires savent que euh, joxuñu leen ñu commander armée ngir xam-xam. joxuñu leen ñu commandé armée parce que dañoo euh, euh, euh, dañoo gën Sénégalais mais dañoo jàpp ni expertise bi ñu am mën nañ ko commandé ñu jox leen ko kon jàpp naa li général Birame joboo waxoon ñoom nañ koy fàttaliku buñ la joxee dix francs pour homme yi jox leen ko boo leen ko joxul jàppal ni sa njaboot nga koy jox te boo ko joxee sa njaboot génn nga yoon hmm. génn nga yoon un officier qui a beaucoup d'argent dagg ci RAD booy dindi ko dund la njabootam loolu. kon ñu revaloriser li ñuy jox. il faut ñu revaloriser la masse financière de l' armée premièrement TTA bi. traité d' arme traité toute arme ñun France moo ñu ko bindal moom la ñuy jàng dëppoowul ak sunu àq ak suñu yelef un dëppoowul ak suñuy valeur le chef a toujours raison mooy lan. dafa war a dañ. mais dafa war a dañ yàlla rek am dëgg article un le chef a raison. Article 2, le chef a toujours raison. Article numéro 3, même si le chef a tort, on se réfère, on se réfère sur l'article numéro 1. Donc le chef a toujours raison. loolu daa mën ne mun ne il faut ñu jéem a xool suñu TTA bi xoolaat suñu règlement militaire parce que reglement bi du reglement règlement règlement bi nañ ko tëgg en tant que règlement sénégalais gars yi nañ ci gën gi gis seen nañ ci gën gis seen bopp il faut ñu renforcer suñu formation bi bu baax man j'ai proposé que au lieu ñuy def euh, au lieu ñuy def Euh, trois contingents de quatre mois. Hmm. di jël mille deux cent à l'issue de deux ans des deux ans nga libéré huit cent yi. man dama ne présentement dañu war a xool nu ñuy def ba renforcer notre dynamique renforcer sunu sunu sunu sunu sunu sunu armée ni ñu koy renforcer noonu donc la nañuy def léegi deux contingents de six mois. tu recrutais tu recrutais mille deux cent maintenant tu recrutes huit cent. ils font six mois ñooñu dañuy jàpp ni sauf indiscipline bu. caractériser lan lay mën a génne armée mais sinon ñoom dañuy rengager d'office bu ñu rengager nag nañ fa fekk promouvoir ku rengager mën na la jox kër parce que militaire loolu mooy problème moom jàngalkat bi loolu mooy problème moom docteur bi ku rengager mën na la jox kër di la ko dagg vingt cinq ans d'accord yooyu nañ ko boole ci proposition loolu war ko boole ci proposition ak la nit leneen li hmm. mooy surtout la fami militaire oui la famille militaire benn veuve wax na ma ne trente deux mille francs la am pension ak moom ñaari doomam. ci le mois wala ci le mois. trente deux mille francs ku xam sa jëkk dafa dem dee ci guerre bi ñu ñëw jaale la cinquante mille ba pare ñëw jox la pension trente deux mille francs. jaale la cinquante mille cinquante armée li muy jaale pour cent mille. jaale la cinquante mille wala cent mille ba pare jox la pension trente deux mille te bala nga cay jot ay jafe-jafe la loolu war naa dakk ci réew mi. Sénégal rek moo amul pension euh, euh, orphelin ku sa bàyyi dee ci guerre bi nga pension Sénégal rek la amul leneen li xool suñu retraité yi sonn nañ xool un député bu def 10 ans de mandature retraité ñu ne jeexal na retraite parlementaire am na 400000 un colonel qui a fait 36 ans de service am mooy de 300000 retraite est-ce que jabaru ambassadeur dafa gën jabaru militaire bañ koy fay 1 million par mois bàyyi jabaru militaire bi. bàyyi jabaru enseignant bi bàyyi jabaru docteur bi est-ce que jabaru ambassadeur dafa war am passeport diplomatique donc man jàpp naa ni il faut ñu jéem a xool suñu armée pour bu ñu bëggee bu ñu bëggee développer. Mm. leneen li mm. dama ci invalide yi sama genre gi man pension mënu ma ko am bind naa ku ne ñu ne ma caporal Fall tant que noppiwoo doo am pension may leen jëleen pension bi. tant que noppiwoo tant que noppiwu ma tant que bàyyi ma défendre militaire yi tant que bàyyi ma ñaxtu tant que bàyyi ma politique. may leen loolu mënul ne parce que man je me suis engagé en 2005 pour défendre mon pays ba léegi ci loolu laa ne sama bakkan laa ci jiital kon jàpp naa ne tey il faut ñu xool suñu. les invalides les invalides de guerre ñu fay leen ay pensions yu baax retraités yi mën nañu régler seen problème retraités yi nañu yokk seen pensions yi mais au préalable pour ñuy war di retraite encore nañu yokk salaire militaire yi salaire force de défense et de sécurité yi nañ ko yokk def ko ci salaire de base bi mais boo dugalee ay waa ji bu retraité prime yi day dañ mais boo ko dugalee ci salaire de base bi tey bu retraité dafay des hmm. day gis un soldat bu retraité du am quinze mille francs de pension war a dundal ñeenti doomam ak ak ak jabaram amul kër moo tax ci société de gardiennage yi lañ jëm loolu day dak ci réew mi parce que le militaire c'est un très grand monsieur bu retraité dafa war a toog njaax comme ñee ñi ni ñu koy defee leneen lii mooy leneen lii mooy l' administration militaire hmm. l' administration devrait être une administration pragmatique mais lenteur administrative yi nga xam yaa ngi koy dégg ci enseignement bi. ci armée ba la ëppee. ak ñoom ni ñu leen xamee ci pragmatisme. ils ne sont pas pragmatiques maintenant da ngay déposer benn échelon pour mu génn def trois mois da ngay déposer papier de mariage il te il presque un an da ngay déposer mu génn il te fera presque un man bi ma dàqee dama FNR sama FNR ñu delloo ma ko comme que dàq ngeen ma amatuma retraite delloo ma ma doon cotiser mais j'ai fait deux ans pour ñu delloo ma ko ba pare dagg ko. liggéey mois de janvier 2016 ba fin du mois ma fayee ko mais ba ñuy jël seen euh, ba ñuy jël sama FNR dañ ko dagg kon loolu dëgg du yoon. li ma jàpp. mooy mooy nañu redynamiser nos centres de formation nous avons des centres tactiques. appuyer leen en logistique appuyer leen ci moyens yoo xamante ni mën nañ faire face à tout li nga xamante ni mooy menace venant de l' étranger. kon jàpp naa ne loolu bu ñu ko defee dina am solo. d' accord sànq ma dégg politique say wax mooy ne kon tey boo nekkoon député laajee bu ñu natt budget yi. man jàpp naa ni du ñu natt budget assemblée nationale ñëw ba budget armée ñu ne sans débat loolu mos a am ci réew mi su ma taxawee assemblée nationale dinaa fa taxawal armée sénégalaise su ma taxawee assemblée nationale dinaa fa taxawal les corps paramilitaires gendarmerie police douane eaux et forêt képp kuy soltani ci Sénégal ak sa njaboot jàppal ni caporal Fall mii moom mooy sa député à l' assemblée nationale. parce que nekk gu ma député mais jàpp naa ni man maa ngi seen député nii parce que maa ngi di xeexal di nga di nga dégg kenn ci sénégalais ku génn taxaw di wax li may wax nii ci armée bariwul kon man jàpp naa ni ñoom war nañ ma boot yóbbu ma assemblée nationale pour seen ay jafe-jafe wàññeeku d'accord loolu leer na xam naa ne fii ak ñu jëm ci législative yi dana dana dana dana dana danañ ci xam dara fi ñu jeexalee mooy lan moo la marqué armée loo xam te ne mos nga ko dund euh, xëy na ma bëggoon ñu partagé ko ak ñi bàyyi xel ñoo euh, bari na ci sama libération rek mën naa ci njëkkee. sa libération. rek. biñ lay libéré. damaa dem ba ñëpp beddi ma. ñëpp. dama dem ba ñëpp daw ma pour ma jot un chef sax pour wax ko sama problème sax c'est un tas problème ma jàngat ci ne arme armée quand apt es apte militaire mais bu amee lu wàññeeku ci yow te jële ko ci armée ba tu deviens un mauvais militaire kenn dootu la considérer man damay réclamer sama pension parce que officier yëpp ngay gis ñëpp am pension d'invalide dara jotu leen wee bu xot wee bu dañ sax ñu ne pension officier yëpp am pension officier yëpp am carnet de ñun ñu ngi nii xeexal suñu réew ba lii daal ñu mun ñu am sax carnet de pharmacie mun ñu am sax pension d'invalide ils nous ont laissé en rade avec notre famille depuis 2016 man ma liggéey war a dundal sama njaboot teg ci fan ma doon xaare na duñ fekk parce que dañuy yaakaar ni caporal bi dina leen dugg ci ñaawteef bañ man koo teg loxo man ko tëj vingt ans mais je suis plus intelligent que gënuñu ma jàng gënuñu ma bëgg réew mi te gënuñu ma xam réew mi armée dund naa ci lu ne injustice booy dégg armée c'est une dictature camouflée armée c'est de l'esclavage camouflé la lan fay dund nit du ko dund le chef a toujours raison mais malheureusement pour eux tey am na ñoo xam te ni génn nañ leen ci jaay doole. yaakaar na ñii bu eggee dañuy noppi parce que ay secret défense secret d'état ay obligation de réserve man bokk naa ci ñi nga xamante ne 2016 ba léegi maa ngi taxaw ne wax fi ngeen di jaarale armée du fa a jaar parce que armée fi nga ko jaaralee du tax armée baax ñoom ñëpp ku fi jaar ci nekk général wax naa la ko ku fi jaar nekk ministre des forces armées wax naa la ko kon la war def na dimbali askanu armée ak seen ay njaboot seen njaboot yoo ci gën a sonn te da ngay nekkee Casamance jël sa téléphone lonk ko amoo réseau yow dal na la. dal na ma. kañ sama doom bi roqee bi muy judd loolu dama dal ci loolu. lan la. dama de dama dama dem euh, dama dem ndeysaan euh, jëri jonn di yóbbul yàpp sama benn euh, suñ benn section bu nekkoon foofu dañ doon def ñoom bu ñu reyee man wala jakoy rey ñu jël viande bi jëndal leen vingt trente kilos yóbbul leen ba mu yóbbu jibi jonn bu heure ku xam jibi jonn boo génnee sur ci pont bi tak yaa ngi jot jibiyam ba may dagg jibiyam nag pour dem jibi jakoy kombali ci laa daje cadre bel ñeenti rebelle ñeent ñu taxaw armée de Kalachnikov des jeunes des jeunes ñu taxaw armée de Kalachnikov ma dama tëb taxaw ci moto bi damaa taxaw tëb noo moom dafa saaran gaay fekk ko takk ko xam ni joolaa la ñu menacé ko ne ko waxoon na ne bu leen di génnati militaires yi man on m'a tout fait ce jour là dóor nañ ma dóor yi métti dóor yi méttee métti nañ ma on m'a posé des questions pour savoir que ni hmm. sama position sama PC bi nga xam mooy jullu fi colonel bi nekkoon ñaata élément ñoo fa ne ñaata arme lourde lañ fa am posé question ci sama PC jiral ñaata élément ñoo fa ne ñaata arme lourde ñoo am seen mission yi fu ñuy jaar ñëw ba sama position bi nga xam maa fa ne nekkoon caporal d'ordinaire muy joxe kombali ñu laaj ma ñaata lañ mais ñun armée li ñu jàngal mooy ñetti question rek nga war a tontu mooy nom et prénom grade et immatriculation foofu la ñu yemale ba ma ñëwee ci camp bi bi ma bàyyi na ba ma ñëwee ci ci laa gis sama chef bi sama chef de poste dana ko chef man de gaari ma dama ne sax da yàgg ma ne ko gaari ma jàppoon mu ne ma fan ci moo ko axe bi rek caporal beneen caporal boobu nag sa téléphone baa ngi sonné depuis ce matin ma ñëw jël téléphone bi xool gis appel en absence mi sama ma woo ko mu ne ma démb rek jotuma ndaw ma ne ko waa ah, fii dañoo am problème réseau nag fii da lonk téléphone bu ku ci nekk sa sonnerie bu ñëwee bu sa boo sonee ñu woo la nga daw ñëw ci ordinaire lañ koy lonk mooy man ma la bëggoon yëgal ni am naa doom bu jigéen j'ai pleuré ce jour là. parce que dama jàpp moo gëstoo sama ginnaaw lee ma daj matul deux heures de temps man je pense sama doom boobu noonu bu doon góor la kon man tey du ma toog fii di wax. ba tey yàlla noppi na j'ai souffert pour l'armée sénégalaise moi j'ai formé quatre mille militaires aujourd'hui aujourd'hui des officiers dans l'infanterie aujourd'hui des officiers à la gaz, aujourd'hui des officiers à l'école à, euh, à la santé militaire des lieutenants médecins tey amul corps booy dem ci Sénégal te doo fekk sama élément moo tax ñoom li leen xaw a jaaxal fu may jëlee information yi lu xew ci armée balaa may tëdd jot ko parce que ñoom jàpp nañ ni man maay seen porte parole armée amul syndicat ñoom ñoo wax mais ñun ñi ne ci biti dinañ leen waxal li nga xamante ne mooy dëgg gi. du nu mus a wax ne luy taal réew mi jamais on a souffert pour l'armée ñàkk ci suñu bët revenu à zéro tax may ñaan suñu autorités yi nañ bàyyi xel ni ñi ne ci armée bi seen ay doom lañ nan bàyyi xel ni ñi ne ci armée bi seen ay jarbaat lañu man ki ma dàq retraité na il malat malade ñaan ñaanalu ma ko loolu damay ñaan yàlla yëkkati ko may ko gudd fan ba lam doon yaakaar ci man mu bañ koo gis loolu laa ko ñaanal parce que man je pense que tey bu doon doomam la ko dàq de la vie bu doon doomam la dina ko jël promouvoir mu nekk lieutenant wala capitaine jamais de la vie man j'avais des problèmes pour ma avancer dans l'armée parce que man damay bañ man lu ma ñàkk bañ a ma ko xañ man am na loo xam ma ko mës a nangu ci àdduna man dama doon taxaw ñoom ne di mu leer may leen chef il faut ngeen jox booy ñu lekk ba suur parce que booy ñu yor sécurité camp bi chef il faut ngeen teel a fay booy seen iso parce que dañoo war a envoyé seen waajur ay xaalis man booy ku dem def njaaxum sax sama tur ngay mbubboo caporal Fall moo ma bàyyi boobu du ma yëkk mais comme que dégg naan caporal Fall moo ma bàyyi rek man sama devoir mooy protéger mon élément mooy accepter jël ci punition nangu ne maa la bàyyi après nag dinaa la bu ëllëgee booy dem tàggu ma parce que lu moo yëgul man na maa bett on a beaucoup fait pour l'armée ouais. on a beaucoup pour l'armée tey ñi nga xamante ni fii ak war a ŋànk armée man maa leen sama jëmu ji kon jàpp naa ni nañ gën a respecté armée jàpp naa ni nañ gën a wekk armée pour buñ bëggee développé nañ dimbali la famille militaire veuve yi sonn nañ yi sonn nañ invalides yi sonn nañ retraités yi sonn nañ même ñu nekk dans la tenue sonn nañ booy léegi armee dafa ñu ko ngir bëgg loolu moo tax défaillance yi di am booy dañ ko def parce que c'est le dernier recours dañuy ñëw armée def deux ans am suñu certificat de bonne conduite dem defi douane wala gendarmerie wala feneen warul demee noonu armée nag ko war bëgg dem ko ñun bi ñuy dem ñu bëgg armée dem parce que jàpp nañ ni pas mal d'emploi dañ ko fa ba dem gar suñu bakkan pour sauver des vies kon loolu dulu lu ndaw il faut ñuy bañ di rébellé di di rébellé wu gars yi parce que yenn actes yi bu ñu koy posé ci militaire. Hmm. ñuy rébellé wu. dina leen jaral ñu dem dugg ci leneen dina leen jaral ñu dem dugg MFDS dina leen jaral ñu dem nekk terroriste dina leen jaral pour se venger mais man je ferai jamais ça parce que man Sénégal dafa yaakaar ci man ba pare ma yaakaar ci Sénégal te jàpp ni bokk naa ci ñi ko war a defar. jërëjëf loolu tax. dañ lay gërëm. merci Pape maa ngi gërëm tey nag sama jabar. macha allah Anta. Mm. parce que euh, ba ma koy takk je suis fonctionnaire ma dem man dàq ma on a deux enfants deux filles ma dàqee mu toog góorgóorlu di muñ muy metti lool des fois j'ai des problèmes sax pour ma jox ko dépense des fois dina am ordonnance j'ai des problèmes pour ko mais loolu lépp mu ngi ànd ak ngorom. à chaque fois li mu wax papa ma ne ko ah, mu ne ma dina baax kon maa ngi koy ñaanal gudd fan ba loolu mu yaakaar ne dina am suñ suñu borom def ko bu defee euh, xam na ñu war. macha allah maa ngi gërëm Sénégal yëpp di féliciter Lions yi encore di féliciter Lions yi ci victoire bu mag bi nga xam am nañ ko man jàpp naa ni c'est le premier c'est la première victoire des na incha allah rabbi euh, ñu demaat Coupe d'Afrique jël ko. dem coupe du monde. Mm. dem ba demi-finale. man je pense que ni loolu loolu loolu am na solo. jërëjëf euh, ils n'ont rien demandé président jugé na ni def na lu kenn musul def jox na leen li mu leen war a jox waaye président aussi na fàttaliku ne su gaa yi mënee taxaw stade bay football en sécurité parce que am nay police yu fa nekkoon. am na nay militaire yu lalu ci lalu ci ci ci ci ci frontière bi. Mm. pour moom mu mën a nelaw. di féliciter encore la coalition yooyu Askan Wi. <laughs> parce que yeewi nañu askan wi bu Sénégal euh, di leen féliciter bu baax di leen encourager ci combat bi parce que c'est le combat bi askan wi yëpp bëgg. Ah. aussi j'ai pas euh, euh te nuyu ma sama leader yaa ngi jooy vraiment j'aimerais pas di waxtaan ak yow ngay ngay ngay ngay ngay kii. ay nit la euh, du ay nit lan Sénégalais yëpp li la dal moo leen di dal moo leen dal parce que xam na ni jaarul yoon. di féliciter le président Bougane waxoon naa la ko fii nee naa la dañuy dem <laughs> mais am nañu yaakaar on est troisième mm. au niveau national on a deux cent dix mille voix kenn mësu ko am ci politique Sénégal première fois élection kon may wax waa gëm sa bopp yëpp nañu gën a remobiliser le travail c'est à la base dem ci quartier yi jaay fa philosophie jaay fa idéologie gëm sa bopp su ko defee incha allah rabbi en 2024 ñu jël Sénégal defar ko je serai ministre des des forces armées defar Casamance li ñu leen warloo ñu jox leen ko. jox leen ko maa lay sant bu baax. maa ngi lay sant <laughs> bu baax. maa ngi koy gërëm moom caporal Ousseynou Fall nekkoon euh, sunu gan seen émission euh, bii di treize minutes de vérité c'est nag ci parcours beeg jaar-jaar bi am na ci yoo xam te ñun ay nit lañ. Euh, am na yoo xam bu génnee faw dina la dina la laal en tant que doomu aadama parce que Sénégal bi ñoo ko bokk effectivement léegoo léegi liy dal ñëpp moo ñuy dal moo tax boo ci waxee leen rek mën nañoo am fu ñu yóbbu mais loolu yëpp ñu koy euh, sant di ko gërëm di ñaan yàlla sa situation gën a gën a gën a gën a gën a wu amiin ba ni ñu ko bëggee nga amee ko euh, noonu ak ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi reconnaître seen bopp si yow amiin en tant que jàmbaar bi nga doon ñu ngi leen di gërëm di leen sant yéen ñi àndaloon ñun rawatina techniciens yi Euh, suba incha allah lañ fi euh, dajawaat beneen numéro euh, beneen gan seen émission 13 minutes de vérité fii ci Sénégal set